barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi nga xam ne nii yéen a ngi bàyyi xel Xasaayid TV saa nekk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu àq di leen balu àq koy ànd ak yéen ci liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim fii ci réew mi ak bitim réew mi rawatina ci dëkk bu tedd di Touba tey jii nag xam ngeen ne di ñeenti fan ci weeru mai 2016 tombeek bis bu màgg bis bu màgg di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke nag euh, buñ waxee rek yëpp day daal di dem ci guddi gu màgg gi nga xam ne moom la ñuy dëgmal muy guddeeg rajab guddeeg kasu rajab di weer wu barkel weer wu tedd weer wu am waay ci lislaam Serigne Touba Cheikhul Khadim nag suñ borom jagleel ko ki nga xam ne nii mooy Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ni mu ko daan waxee bi yonent bi reñaane ne na yonent bi dane cëpp man lay dane lay mën a cëpp kon yaakaar naa ne loolu moo tax gis ngeen ñoo ngi fii ci jumaay ji nag ngeen jàkkaarloog bërëbu Cheikh Mouhamadou Fadal mbokki jullit yi ak taalibe yi bàyyi ko fu nekk ci réew mi ak bitim réew ngir ñëw nag ziyaare ak màggal bis bu tedd bii nga xamante ni mooy bisub Kazu Rajab bis bi nag xam ngeen ne biñ ko dalee waajale léegi ci njitu Serigne Abo mi nga xamne ni moy khalifa Cheikh Mouhamadul Fadal mbake ànd ko ak comité d'organisation magal gi ak mboolem julliti ak talibé yi amal nañu ay waxtaan yu yaatoo yaatu ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi lépp ngir tassaré njàng ak liggéeyab Cheikh Mouhamadul Fadal mbake bani bis bi ñëwé bis mi nak niko xassay TV fassiyene ànd ak yéen ginnaaw reportage yu am solo yi nga xam ne ni dinañ ko am fii ci jumaay ji ngeen gis mbokki taalibe yi bàyyi ko fu nekk lu naaj wu tàng-tàng ñu ñëw ngir barkeelu ci jëmm ju tedd jooj suñ ca pare nag dinañ dem jéem a gis ziar yi nga xam ne ni mbokk yi koy ziar jamono yi ci kër Serigne Abo buñ fa pare dinañ gis turandoo ak ñenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo ñëw itam màggal si dinañ leen laaj seen yëg-yëg ak seen xalaat ci bis bi door nag nag dem fële ci guddi gi incha allah bi kër soxna mam Bousso di kenn ci njabootuk cheikh Mouhamadul Fadal foofa nga xam ne fale isbu tarxiya daaru xuddoos fas yéene màggale kon daal muy bis boo xamante ni bisub xéewal la bisub ngëneel la bisub muccukaay la kon ñu ngi am yaakaar ne lépp luñ fi ñaan suñ borom dana ko nungu ñu ngi am yaakaar lépp luñ fi def rek suñ borom dina ko nungu su ko nungoo yàlla na ko ful ful ko ngën gi ful def ko addee cheikh Mouhamadul Fadal ba ci kanam ak Qaça'id TV ñun de Momadou Ndiaye la ñuy wax wante nag ñu ñu gën a xamee ci Baye Fall tee téeñum ndongo yi. akasa mel ni yéen a ngi fii ci barabu Serigne Fallou di màggal bis bi ànd ci ak dongo yi lañ nga ñu mën a baaxee ci bis bi rawatina ci liggéey bi ngeen def. xam naa ne daal sëñ Fallou moom mooy sëñ Fallou. Mm-hmm. te Serigne Fallou mooy Serigne Touba. Mm-hmm. te Serigne li ma ci xam lu néew la wante li ma la ci mën a wax mm-hmm. mooy Serigne Fallou moom képp ku am sa soxla. boo gisee màggal gi mel nii képp ku am soxla loo am sëriñ sëriñ di nga sëñ Fallou képp ku feebar loo am sëriñ sëriñ di nga sëñ Fallou képp ku am aajo loo sa aajo boobu loo ko am sëriñ sëriñ di nga woo sëñ Fallou. tur bi naka la. man Mbaye laa tudd Mbaye. fan nga bàyyeekoo ñëw màggal si laa dëkk. nak eh, lan nga yek ci magal gi ak lan nga no ci mën a wax. ñu ngi santat bu wër bañ ko féké ci jamm té di ñaan yalla di wéssu ko wéssu ko tamit ba fekkaat ay magal yu bare bare bare ndax señ fallu jarna lo puli waaw lool lañ lool lañ dal lañ gis ci magal gi pour l'instant. bismillah señ Pape Ba ñu ngi lay nuyu di la char mu melni yeena yéen a ngi ànd ak ab daayira indi ay xewal fi ci bërbu señ fallu mën nañu wax ndax mën nañu xam turu daayira bi fu mu bàyyeekoo ak li gëna fa seen liggéey fi dëgg la asalaamaaleykum mbokk taalibe yi daayira ma maanaam ñu ngi tudd daayira ko señ Fall bu sëñ Cheikh Mbor Pencu Paline ak année nag dañuy def simbi mooy togg xéwali kër gi ba mu àgg def ko si ay bool ñu indi ko kër Sëñ Fallou bu noppee nag gars yi ndaa koy tas si barab yi séddale ko mbokk mbokk taalibe ñu xéwali si bu baax baax a baax jubluñu si leen nag lu dul màggal bisu sëñ bi waaw ak am si ngërëm sëñ bi bu baax a baax ñoo ngi mbokk taalibe yi ba ko ànd ak ñu bëgg a xam ndax liggéey boobu Kazu Rajab rek ngeen ko yemale wala yeneen màggal itam yéen a ngi wéyal liggéey boobu ak sëñ bi daal màggal bu am dañuy jox ndigal mba si ndog yeeg màggal suñu Fall walaay li a mag moom mooy màggal suñu Fall gi ak koor ak ndogu yi ñu ànd suñu sëriñ ñoom ñooy suñu jëriñ ñoo lañu bi ñoom ñooy doomu suñ bi lan nga nu mën a baaxee ci bis bu tedd bi nga xam ne ni dañ koy màggal di ci fàttaliku tedd muy Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ibn Xalim Rasul ah Fall xanaa sant rek waaw maa moom taw fi xel Mbacké Cheikh Fall sëñ mi tax ñu indi fii ndogu yi sëñ Fall loo moo def ci moom lépp boo tax bu bis bi jotee day def ay xéewal def ay bernde ay bool yu bari ñu indi ko ngir jëmmi sañ Fallou ci barab bi at mu ne dañ koy def bu loolu jàllet lu demee ne kasu rajat gi bu dañ koy def lu demee ne koor gi dañ koy def lu demee ne ndigal yi nga xam ne mooy jóge ci waa kër sëñ Fallou yëpp dañ koy def ndax moom mu Baye Fall moom ndigal rek la am amul leneen lu dul ndigal ñàq jariñu jëf jël la maam Sara Fall wax nee képp koo xam ne ñu ngi la raw ci yoonu sëñ Tuubaa wi ban koy def yaa ngi toog di seetaan kon ñàkk jariñu moom mooy mooy mooy li nga xam ni mooy may ab taalibe dara te képp koo xam ne am nga dara dara dara tey ci Serigne ñu ngi ko yaa ngi ko war a royee ci maam Cheikh Ibra Fall ndax maam Cheikh Ibra Fall Serigne Touba nee na mooy Babil bi jëm kër nag boo boo ciy boo jëerul ci bunt bi feneen foo mën a jaar daan la teg leneen kon jaar ci bunt bi moo gën a wóor te bi solo fii ci bërëbu Cheikh Mamadou ndax mën nga ñoo waxal tuti ci liggéey bi nga xam ne nii si waa daayira bi ñu ngi koy liggéey fii waa liggéey bi de liggéey bu ñuy rafetlu la liggéey boo xamante liggéey bu ñu bëgg la ndax euh, liggéey fii yombul taxaw fii liggéey yombul du n'importe rek mooy ñëw liggéey seexul xaddim nag bu ñu koy liggéeyal dañ ciy sàkku barke sàkku ci mën-mën sàkku ci lu bari lañ ciy sàkku moo tax ñuy bàyyi suñu yitte yëpp ñëw di ko liggéeyal ndax moom liggéey na lépp ba pare ñun dañuy ñëw di ci jàpp di ci di ci waslu àq daal di ci def lu ñu suñu kéemtalaay kàttan waaw moom moom moo taxoon ñuy liggéey daayira bi chaque année ñu fekk leen fii ci bërëb bi est-ce que mën nga ñëw baaxal mën ngaa dikkaat ak ñun ci liggéey bi ngeen xam ne yéen a ngi koy liggéey fii ci bërëb sëñ Fallou ci bisu magal pour jàppale soxna la ak góor yàlla yi ndax daayira bi daayira bu mag la daayira ñaari ñaari daayira la ñu booy leen mu nekk benn ñi nekk ci góor ñi ñi nekk ci jigéen ñi ndax gis nga màggal gi ni muy mel day xaw a ëppi loxo bu ñu amul ku leen jàppale rek gaañu gaañu mun naa am moo tax soxna yi dañuy nekk ci soxna yi góor yàlla yi nekk ci góor yàlla ñuy defar rang bi di leen berndeel di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan ba ñëpp ñibbi si jàmm ak salaam li fi lépp li fi lépp li fi waaye di ñaan yàlla suñu borom nangu ko loolu moo tax ñuy liggéey waaw daayira bi dañu mooy xidma suñu jëwriñ ni nag ñu ngi fee ñun sax waruñu woon jël parole pour wax waaye ginnaaw ñun ñoo fi nekk ñu wax rek waaw dañoo ñëw ngir jàpp ci liggéey bi liggéeyal suñu borom ak Serigne Touba ci jumaa ji waaw ñun ak soxna yi yëpp suñu ginnaaw. est wax réellement lan seen liggéey ci soxna yi rek la jëm ak lan ngeen di jàppale soxna yi pour ñu mën a ziar ci anam yu dëppoog teggini bërëb bi. waaw dañ leen di jàppale pour ñu sellal muuraay ndax nit mën na jug ñëw ni day si. te du xam sart ban la kiy ziyaare war a war a def li nga xam ne moom la kuy ziyaare war a def waaw bu ko defee bu ñëwee ñu ni ko na defar muuraayam bu fekkee dafa sol lu yiwul ñu jox ko kol gu mag mu koloo ko bu ñu duggee ci biir tamit day faral di xat waaw ñu fay nekk di parfois sax da nga ciy gis ku xëm wala dara loolu mooy tax ñuy nekk ci biir di leen jàppale aussi ñu defar rang yi seen liggéey bi ci Kazu Rajab bi rek la yem wala yeneen événement yi aussi yeneen koy dañuy dañuy ñew magal gu mag gi tamit dañu fi def ñenti fan wala juroom dañuy ñew magalu Kazu yap gam gi tamit goor ñi dañuy ñew wa wa ñu ngi lay nuy di la siyaar. maa ngi dellu siyaar. Euh, bi naka la. Ndeye Mbengue. fan nga baye ko magal ci si. Ceycey Diagne. lan nga nu moy wax ci bagal gi. Ah, neex rek waaw neex rek contane di sant seigne Touba bu baax doon luñ ci santone seigne Fall lan nga nu ci mëna baxé tout rek. Fall kay mom xana ko sant ko contane ci rek ndax am naam sëñ fàllu waaw sëñ fàllu ñoo ngi koy ñaanal rek yàlla naan xewlam gi yàlla na yàgg baawaan tur bi naka la soxna mbooja jaw soxna mbooja fan ngeen di jóge mag noo ngi jóge uh, tëngeej ñëw fii nag ci barabu ji Fàllu mbakki bi bool ànd feeg mbooloo mu bare bare jëmm ji li la romb nii ci jëwrin yi la bokk di ay gone yoo xam dañ leen di ñaanal sa borom yàlla yal na guddal seeni i fan wéral seen cër faj seeni aajo saafara seeni i jàngoro ci barke Mouhamadou Fadal Mbacke borom bis bi ndax fii da ngay xool naaj bi ni mu tàngee waaye amuñu fenn yulte lu dul ci barab bii nit ñi di dugg di siyaare bëgguñu ko xiif bëgguñu ko mar bëgguñu ko daanu bëgguñu ko def dara boole kook seen i xéewal di ko jox nit ñi. ma àndaat ak beneen daayira boo xam ne xidmatul xadim ña nga fële ca ginnaaw penku jumaay penku barabu alhaji fallu di liggéeyal sering fallu di joxe ay ndox yu sedd di tanggal ay café di ko jox nit nit ñi lepp rek ngir jëmmi alhaji fallu mbakke serigne fallu nak mom, ndawal guddi la rek kenn ku jëkk ci ku ci jëkk rek da nga naan man dong maa ko moom balay sa buri serigne mbakke mara moy guddal fan yi moy wëral cër yi moy faj aajo yi moy safara jangoro yi moy faj rag rag xol yi muy mahmoudou fadal mbakke mi fallu serigne fallu naka ba fan nga dëkk fi nga dëkk wala fan nga jógee màggal si. Dakar. Dakar nga jógee màggal si lan nga nu mën wax ci màggal gi. neex na. de. Fallou Mbaye. sëñ falu Mbaye. sëñ Fallou Mbaye fii nga dëkk wala fan nga bàyyi koo màggal si. Dakar. Dakar. Dakar nga jógee màggal si lan nga nu mën a wax ci màggal gi. neex na. Hmm? neex na. si ngi lay nuyu di la si tur bi naka la. man Ndeye Ndoye Sène. fan nga bàyyi ko màggal si. Dakar. lan nga nu waktu seni wax ci falu lima sëriñ fallu li ma mën wax ci mom suma suma suma taxawé fi ma wax du jeex ndax sëñ bi dama tukki won tukki bu sori musuma genn xawma genn ma dem ci dekkou naar mu metti trop sëñ bi ma waron fa am 3 ans te bi may dem xawma dara ci tukki janguma ta sama sama sori wul ma and ak sëriñ fallu rek fu ma ba jaaxle rek genné photo bi ñaan ci sëriñ Fallou ma dem nak bi mu metti trop amna ño xamantani xamante ma fa jitu ta ñang fay dund lu metti waye man ma and ak serigne Fall rek sumay teud ma ak serigne Fall sumay tafo ma ak serigne Fall ta fofu so fa demee tank sa 3 ans matul waro ñu serigne bi fukki fan ak ñaar la fa am ñama yow ña ma sax lima indi ba tey da jaaxal mu metti won lol sama jouru dimanche bobu sama yow sama fukki fan ak ñaar yoy dafa melni fukki at ak ñaar ci man ma doylo serigne Fall rek gem ko ndax mën nga noo wax réellement naka la la sëñ Fallou feeñoo ci li nga xam ne ni mën nga koo mat nettali rek. ni ma jaw ni ma sëñ Fallou feeñoo damaa dëggu te damaa gëm sëriñ Fallou te nag lépp lu ma waaye ndax ci sëñ Fallou ma nangu sëriñ Fallou ci fi ma feeñoo moo sori sëñ bi barke sëriñ Fallou dañu ma tëj ci appartement boo xam ne gisuma nday gisuma baay ma ànd ak sëriñ Fallou rek mu metti tar lu ñu ma gëmloo ma ànd ak sëriñ Fallou rek. bi nar nar bi di ñew di fel buntu bi fekk ma tari juroom ñaari serigne fallu ni man de bu sama andak ak serigne fallu Fi la fi metti na lol ta gisuma kenn bala ma daane la nar bi ñew ni ma ndax bëgg nga volu 3 h du matin maniko ko bëgg na ci la xamni nak man serigne fallu man dama and ak mom deug barki fallu fàllu jere jërëjëf lan ngeen yek ci magal gi ak lan ngeen ci mëna a wax ay ndam ak ay mbekté rek di ñaan yalla kep ko xamni ci ren sans borom nga ñew ci deewon ndax bisub sëñ Fallu bi moom képp koo xam ne da ngay raam sax jaral la nga ñëw ndax sëñ Fallu jar na ko am na luñ ci njort tam te jàpp nañu daal fii tey lépp lu faay ñaan incha allahu rabbi dina nangu. naka yi tey sant yàlla bi naka la. Xaadim Thiam. sëñ Xaadim fan nga bàyyeekoo ko si. maa ngi ko ba diwaanu Kaffrine. diwanu kafrin ak Touba sori lol way seigne fallu jar ko lan nga no mën wax ci magal gi wala bis bi wala ki ñi magalal ah Santa gërem bu baaxa baax ki nga xamanteni moy borom magal gi pass bu mu démé ba taxaw ni tuddu ñu ay Jean wala ñu tuddu ay Pierre war nañ ko ko santé ndax def na ci lu xamanteni ñepp xam nañ ko bu baaxa baax bañ nañ ko bo waxé dañ naan seigne fallu boo amé soxla ñu né la waxal seigne fallu tour bi nakala ak fan ngeen bayiko magal si. ah ñu ne ñong bayiko bàyyi ko fi wax jabel jabel fofu ak Touba xawna sori tuti xana lan nga nu mën a wax ci bisu sëñ Fallou bi ak ban yëg-yëg ngeen si am. xanaa bis bi de moom ñoo koy teew rek di di te te te di digg ñoom màggal te de ah, ñoo ah, màggal si ak jàmm siyaare sëñ Fallou ah, ñaan ci barke waaw mu defal nu gudd fan ak wér waaw ak nawet bu bu dugg ak jàmm yeeg ak waaw mu ñaanu ci nawet bi ñu dugg ko ak jàmm yeeg jàmm lépp bari lépp bari ma ne gaañ tañ tañ barkeeloo ko waaw te ji ci indi ci addiya ci Touba gi ci doole Cheikh Fallou fan nga bàyyi ko màggal si. maa ngi bàyyi ko Touba Refane. mel ni ci Bawol nekk moom ak Touba soriwul tellement waaye nag sëñ Fallou jar na ko lan nga nu mën a wax ci bis bi tey. bis bi moom xanaa ñëw di ziar sëñ falu di ñaan saaburam guddal fan guddal suñu fan yokk cër yi defal ñu xiwal ak taw tawfeex ñun ñëpp lu ñuy sàkku ci màggal gi rek saaburam defal ñu ko sëñ Sidi Maxtar saaburam yàggal ko fi wérali coram المصطفى المجتبى محلى والالي والسادي يا من علا وحبل التاليف والتفهيم واليمنى في كل إبراهيم وصل يا قهار ولتسلم على الذي يلجا بقلمي المرتدى أزكى المستكى يا من بجاي فتخترطها واحفظ بها ذكري وكسر هجري في الآل والحال بعقل هجري وصل